Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam lan lan toog noonu lu ne jooy. Ah, alaaji sëriñ Dame Lo. waaw waaw mu gaa tuuti ñu ngi sant bu baax waa Salam Vision ñu ngi leen di nuyu. na ngeen def ak coono yi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ah waa xanaa fi nekk daal moomu kaay waaw. ñu masawu leen coono ba pare ndax defet bi nga xamante ni am wax dëgg yàlla sa xarit yeeg sa soppe yi sa sa yi am nañ ko tey. ñu gis ni tey rek ci suba gi gis la mosuñu laa gis ci mu ndax yàgg nga koo wax. waaw mosoo cee wax itam waaye ñoom ni mu ni ñu demee ak yow moo tax ba ñoom lu ñu ne ne ci ak ñoom waaw tey nga xëy yendoondoog ñoom jóge Touba ñëw yendoog Dakar ak ñoom nekk ci seen biir kër ga jàppale leen ci waar bi ba ngeen dem stade tey jii waaye suñu borom jël ndam li jox ko ki nga xamante ni mooy Boy Niang naka ngeen dundee loolu ne fii ci jamono bi ñu toll nii. waaw loolu liñ liñ ci mën a wax rek. Mm-hmm. ci gàttal te tënku ko. Mm-hmm. nga xam ne mooy nekk li wér te mooy avant tout loolu moo neex suñu borom bi. Mm-hmm. te loolu la yàlla dogal ñaar ñu doon xëccoo la Boy Niang la yàlla jox ndam bi. dëgg la waaye nag ñun ci suñu bopp moom. man biroon na ne ma. Mhm. xam naa ne ndam ni Balla Gaye ko yor ba nit ñi ñëw ci biir combat bi ba ci làmb gi avant arbitre di soufflé. Mhm. waaye génn bi Balla génnaat daw duggaat ba suñu ba pare génnaat ci làmb ji daw duggaat. Mhm. loolu la Balla wurtu woon a def ci làmb ji. ok boobu la Balla Gaye ñàkk combat. lool looloo li ko ñàkkuloon ndam ni mu dem ci booy Niang. Mm-hmm. lamb ji tamit nag xam nañ li ko détourné. Mm-hmm. ci ay sëriñ yi booy ñaar. parce que xam ci dëkk bi lan dëkk te xamante nañ ñu bari. Mm-hmm. mën mi nga xam ne sëriñ suma ma appel ay téléphone wax ma. am na ñoo xam ne sax dañ ma wakal maa ngi ak ñoom. dëgg la na ko def ci internet mais jurul loolu. mais ñooñu la ñu def ak la ñu détourné lamb ji ak bu mu génnee la ñooñu def ak la ñu def. man sama diina mayu ma loolu wala sama lislaam ok donte ak xam nan xam-xam yooyu man jëralu ma ko ma di ko def. Mhm. surtout maa nag ne làmb. Mhm. man boobu xamoon ne Balla Gaye de ñàkk combat bi. Mhm. ndax avant loolu ñu sama numéro gis nañ ma istati lépp. gis nañ ci ma istati victoire bi ñu ko Balla naroon a daane te loolu mooy li amoon ala kulli yooyu eh, ku nga xam ne tamit tey jii tey tey tey ci bisu combat bi lañ ci doog a yëkkati. Mhm. di ci wax sunu kàddu nekk këram li ñu war a def ñu def ko. Mhm. waaye nag bu loolu jàllee ba loolu jàll tamit. Balla mhm. beneen affaire da ci nekk. ku wax ak sa bàmmeel. Balla entraîné wu ci combat bi. dëgg ñi ànd ak moom ak ñu mën di doon loolu il faut dañ ko koy wax. te il faut loolu dañ koy nangu entraîné wut ci combat bi. bi fin bi lay doog a jël combat bi à série. te bi mu koy jël fekk na booy ñaa jóg ak aw ñoñom ak yëppam. Balla looloo ko andil defet bi. dëgg la. parce que dafa trompo waaye nag ginnaaw bi dafa demoon mu jàgg lépp mu tegu ko ci lenn lu dul xëy na sëriñ seeg yu kenn xamul mais loolu moo neex yàlla mhm. waaw parce guddi gu ne am na fi ba ca gu ne am na ko fi mhm. ñun ak moom nag bu doon daal daal téeméeri at ñu ànd ak moom dëgg la bëri na nag ñu may wax naan ma wóoroo wax ci làmb ndax yow alali sëñ Saliou la mhm. moo la liggéeyloo moo la def ni bul wax ci làmb bul wax ci football waaye nag am na noo tax nag nit bu la lebelee ci lim am li nga am nga koy mën a fay. waaw kon nag Balla ci li yaakaar man. Mhm. ñaari làmb xëy na wala benn làmb mu bëree ko. Mhm. man li ma koy conseil ak bu ñu toogee mooy mu bàyyi làmb ñu jox saalis mhm. mu doxal. parce que Sa Thiès moo war a doxal. parce que làmb xale moo koy def. dëgg la doon ñaan gi nag day mottali. et puis ñaan gi tamit day wëy mais doole ak làmb moo koy def. bu doon mystique rek maanaam kon Yékini du mas a daanu ci àdduna. dëgg la xam naa ñooñu. Mhm. mais tey loolu moo neex yàlla. mais sëriñ bi wax ci wala sëriñ bi ñaan ci am mbaram daanu. daa mhm. ah, bokk ak nga ñàkk bañ a xam dara. booy ñaan ñaata la ñàkk ci xaalis ci làmb ji. Mhm. signature bii paase. signature bii paase li tax ba booy ñaan ñëwul. xam nañ ko. dëgg la man xam naa ko xam naa suñu demoon. suñu demoon man xam naa ko signature bi bi bi mu. mujj bi li tax ñëwul. waaw yeneen ak yeneen yeneen yu ne def xam na ko parce que dëkk bi leen dëkk xamante yeneen sëriñ si. mais loolu mooy li ne. Balla Moubass mag andiwul doole ci làmm ji. Mhm. man xam naa loolu mais moom moomoon làmm ji parce que fexe woon nan ba gañ a ji téye ndam li loxo. Mhm. loolu lan waroon a mën a des. Mhm. waaw li ci des nag mooy. loolu la yàlla dogal daal. dëgg la Sénégal yi amul leneen wala di waar wala yaa waxoon li déedéet. wala duñ wax ci làmb déedéet ci man lan bokk. bu na amee naqar dama koy bokk ak ñoom bu na amee bànneex koy bokk ak ñoom. mooy as gor waaw waaw. léegi su ko defee ma xanaa rek xanaa comme duñ la téye ndax foofu xam naa ni jaxasoo na fi mu ne ambiance beeg yooyu ndax fi mu ne ambiance bi ko waroon a feetoo waaye fi ne déception la dañuy nangu dogal bi waaye ñu gis euh, wax nga ko léegi ci sa biir kàddu euh, ci dernièrement génn boobu mu génn lan moo waraloon mu mu mu mu summeeku ba pare dugg génnaat lan moo ko waraloon li ma ci jàpp mooy. Mhm. moom day topp xëy na booba booy ñaa. Mhm. ci ni mu doon doxale ak daw di génn ngir bañ bañ koo wër. ok parce que wër bi daaw sel woon ci moom. Mhm. mais Balla wër ok parce que moom bi mu rek ba sëngoo ko dugg ci giir bi rek ba mu def li war a def mhm. ci la maanaam pare rek ñu jël ndam li mhm. mais loolu boo defee sorte gaaw génnaat te fekk ñi ngay mhm. wala sëriñ bu ko tegtal loolu da ngay juum parce que lenn rek moo la war a mën a bi muy nga am ndam mais nga dugg ci géew bi def li nga war a def ba mu des lu dul bi loolu kenn du ko def Balla looloo ko ñàkk bi boobu leen détourné combat bi parce que benn génn la waroon a génn muy moom mu daw génn daw ñëwaat toppaat daañu booy ñaa ci loolu daw duggaat. Hmm. moom mën na baax ci booy ñaa baax ci moom loolu baaxul. Hmm. parce que moom moo moomoon làmb ji. Hmm. bala ba ni mu dugg ci biir làmb xam na ne ndam mi ngi ci loxoom. xam ne xam nañ loolu. dëgg la. waaw nan ñoo nag dañuy nekkoon ak doon ko ñaanal. que Balla nag tàkkusaan ju ne na ko fi. waaw loolu ci biir tamit suñu génn wax ci wala ñu génn wax ci làmb ci làmb ñoom rek la mën nit di gis may génn di wax ah. bu dul ñoom aw ma jotu génn di wax ci làmb wala dara. waaw man de ci football laa la xam. mbër nag man du ma wax ci làmb ak day am ak du am ak. Mm-hmm. nii lay def ak di daan kenn du ma ci dégg. Mm-hmm. waaye nag nit bu bokkee ci yow. wala mm-hmm. suñu borom boole leen. ah nit nag bu la lebalee ci li nga am li nga am nga koy mën a fay. dëgg dëgg waaw te ñun ñu génn wax taxaw buntu këram nekk këram ñu wax am na ñoo xam ne xam nañu xam nañu cent pour cent te ay soppal lan wala bokk ci buñ génnee wax ñu gis ñu seen conscience day gën a dolliku mhm. te nag duñ am nag mbër naan day dem ci làmb ja te daanu duñ ko wax liñ mën a wax day daan yàlla ñu yàlla may ndam mhm. ba fekk man li may wax toujours leer na mhm. waaw loolu loolu loolu la yàlla di dogal dëgg la kay waaw jërëjëf nekk di daanu di jiw di yuuxu lu mu amul sant jëru ko du defal dëgg dëgg waaw parce que daal sant ju am na ko waaw bu mu amee la ñu ci metti rek mooy xëy na ki ko daan xale la. Mhm. ñoom ak côté boobu xam nga presque dafa jege Pikine géej waaye te ñoom seen coow dafa xaw a bari. Mhm. waaw loolu loolu rek mooy mooy mooy li ci différence bi wala li ñuy métti. Mhm. waaye man bu dee maanaam aw ma lu ma ciy méttitu. kaddu yu nit seetaan ma waxoon ko maa ko ci wax. te man bu dul ñoom ci ñoom rek la ma nit di gis sama yëkkat sama kaddu di wax. dëgg la mais lii nag moo neex yàlla. waaw ab jaam day nangu dogal. <clears throat> ambiance bi foofu naka la demee fi mu toll nii gannaaw gannaaw ah, gannaaw. waaw ambiance bi ni mu demee fii mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy wax nag moom sa jëmmi yàlla rek tax. Mhm. xam na loolu la yàlla dogal nit ñaa ngi fi. Mhm. kër gaa ngi fees dell. Mhm. nit ñaa ngi fi oto yaa fi doonte tek nag moo fi am. ñii ngi jooy ñii ngi daanu ñun mën a defal ñu ngi leen di defal. maa ngi nuyu gonfo. mais loolu la yàlla dogal. waaw dafa war a daanu daanu da ngay gëm loolu. après affaire bi du leneen. parce que sëriñ tamit du wàllu du yeneen du xut bu samaan. te du yàlla it <laughs> moom moom yàgg naa wax ne dernière minute la. Mm-hmm. sëriñ bu la ci génn teel a génn wax di woy daan waxut dëgg. Mm-hmm. vidéo yi ma ci def yëpp tay la. dëgg la te bi ma ko ci def maa ngi ci kër gi. Mm-hmm. te booba jëf nañ ci xam nañ li ñuy jëf mooy lan. waaye nag du tee nag làmb toujours ma détourné mais bàll génn bi la wërtu woon a def. dëgg la bi mu génnee rek ak li détourné làmb ji xam nañ ko. mais man nee naa la sama diine ak sama lislaam. muyu ma may permettre di def yenn yi wala boog làmb jëralu ma ko xëy na ci leneen mais moo tax na mhm. xam nañ li li indi li indi ndam léegi li indi victoire bi mhm. ñeneen ñi nag xëy na mu jaral leen ko wala leneen mhm. ndax xam ne vidéo yu ma fi defoon bu yàgg ku dugg ci internet ko gis ma ne leen booy ñaam moo yor ndam li waaw xëy na nag bu ñu demee ba ca kanam Balla Gaye nu mu làmb ji demee noonu lay demee waaw macha allah <laughs> jërëjëf loo mu Serigne wu sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax macha allah rabbi kaddu yu mujj yi lu muy doon allo waaw. ma ne ko kaddu yu mujj yi lan lay doon kon que ni ñu bàyyi la nga delluwaat ci yitte yi. waaw kaddu yu mujj yi pensé wul lu dul maanaam sant yàlla rek. Mhm. ak gërëm. Mhm. ñaanal ñëpp rek ak mboolem géejewaay ak li ko wër. ñoo mhm. xam ne lii moo neex yàlla lii la suñu borom am day aji dogal dogal. ndam la doon wuti. yàlla may nekkee ndam dañu koy ñaanal mu jik ko. nit ñi nekk ci leneen. fàtte ko. parce que am na combat buy dëgmal. te buy digg digg combat bi gën a muy parce que nag euh, ku ne gis na ak ay vidéo yi mu def ci ñun lu ne. Mhm. kon moom combat boobu sax man moo ma gën a ñor ci bii lii dañu ñëwoon ngir feeñal suñu yéene. Mhm. wan na ñoom lu ñu nekk rek ñaanga ca. Mhm. waaw mais suñu combat cent pour cent mooy cent pièces Reug Reug. waaw looloo loolu la mais du leneen. incha allah kon moom dañ koy ñaanal ak wér topp ci moom Balla mu defarwaat bëri yeneen combat yi ci des leneen li ñu ko war a wax na bu toogee. Mhm. danañ ko ko wax mooy Balla pare ci làmb ji. Mhm. jox Sa Thiès mu doxal. parce que nag sport xale koy def. dëgg la de. Balla combat bi entraîné wul. Mhm. waaw ñun xam na lool mais loolu la yàlla dogal. waaw macha allah sant nañ la bu baax a baax tam ñaan sama borom dool la. Bienvenue